برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم téléspectateur ak téléspectatrice yu fayda tidiania point com euh, tey ñu ngi am mbégte ak kontaante bu mag ñu dajate de Cheikh Baye Niass macha allah ku ñëpp xamee ci média bi ah, vraiment mu nekk nit koo xam ne ci xam-xam ñu bëri ràññee nañ ko léegi ci réseaux sociaux yi ci télé yu bëri nañ ko ci invité macha allah ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di ñaanal yàlla la xal saahibul fayda tidiani seydi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim yàlla na yàlla guddal fanam te yokk wér bi te di ko ñaanal yàlla moom tamit yàlla na yàlla guddal fan wi te yokku wér gi ak mboolem njabootu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass yu góor ak yu jigéen di nuyu le représentant du xalif ci Dakar Seydi Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Baba. di ñaanal yàlla moom aussi yàlla na guddal fan bi te yokku wér gi di nuyu mboolem mu xadam ak kilifa rek fu mu mënta nekk ci àddina bi di suivre di Tidianiya point com. tay nak mu nek édition spéciale bo xamni ñu dalé tek Cheikh Baye wara cheikh ak mom waxtaan ci suuf yu sha allah mu jox mom mu nuyo ba pare gannaaw bu mu nuyo Cheikh Baye wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bëggoon naa xam en régime kan moy Cheikh Baye ba pare ñu dugg ci waxtaan bi. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana rasulillah wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al إلهنا لسنا من العباد ولا من الزهاد ولكننا معدودون في جملة العباد فبالاسم الذي أوجدت به الخلق من العدم وبما ثبت في اللوح من أسماء شموس علوم القلم إلا أدخلتنا في دائرة لطفك الذي إذا لطفت به لعبد كفي السلام عليكم ورحمة الله ñu نيو lay بكاي دي baax sëñ Bécaye di nuyu دي زياره yeeg نيو سن خليفه مولانا شيخ nuyu suñu xalifa Mawlana ak mbooleem rakkam yi di nuyu al imaam al akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak mbooleem rakkam yi ak magam yi di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw Cheikh Baye de jaam bu xeebu la euh, juddoo Medina Baye ci kër Papanas Mouhamad Nazir Ibrahim Niass euh, yaroo fa jàngee imaam Hassan Cissé euh, mokkaleef alquran ba pare jàng xam-xam ci Médina mu jigi mu dugg ci école français foofu ci école Dar Rahmati ñu gën koo xam ci école Kambuya ginnaaw gi dem naa Maroc jóge fa dem Malaisie waaw ba léegi nii daal ñu ngi ci jàng yi ak gëstu yi te ñu ngi ci tariqa tijaan itam soo boo ko ci loxo imam Hassan Cissé ba léegi nii ñu ngi ñaan yàlla daal nekk dëgg-dëgg ay taalibe Baay dëgg-dëgg ay taalibe tijaan yi loolu mooy Cheikh Baye ci gàttal E e e waaw tasawuf uh, baat bi boroom xam-xam yi yu bari wax nañ ci yaakaar naa bokk na ci ñi ci mujj a wax Baye Niass radiallahu anhu ci Kashful Ilbas indi na fa ay ishtiqaqaat ak wuute yi nga xamante ne boroom xam-xam yi wuute nañ ko ci waaye loolu yëpp mën nañoo wax ni amul solo buñ doon taarif tasawuf daal ci lislaam dañuy wax ne martaba la ci maratibul islam yi lislaam ñëpp xam nañ ne dafa xaj ay xaj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hadith xadisu umar bi ñep xam te mu nekk ci 40 hadith nekk ci téere hadith yu bari bi jibril ñewé ne ko akhbirni ani anil wax ma lan moy l'islam yaronte bi daf ko ne l'islam juróomi yëf la moy julli moy or moy baati sédé yi moy aj màkka moy joxe mu ne ko wax ma lan moy iman mu ne ko iman moy nga gëm yàlla te bu ko ak dara gëm dogal bu baax ak bu naqadi gëm téere yi gëm malaayka yi gëm yonentu yi ba pare gëm bis pénc mu ne ko wax ma lan mooy ihsaan mu ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi koy gis boo demee ba gisoo ko xamal ni moom mu ngi lay gis comme bu ñu doon taarif tasawuf rek mën nañu wax ne moom mooy ihsaan ci diine l' islam maratibul ihsaan la muy ñetteeli martaba bi nga xamantene nit ki mën na nek julit te du nek soufi manam mën na nek julit te du egg ci maqaamul ihsan mën na nek mu'min te du egg ci maqaamul ihsan waye nak ku dem ba egg ci maqaamul ihsan moy ne boole na yee bu ko doon joxe ci misal bi gëna terre à terre moy ne président Sénégal président Sénégal bu nek sénégalais la waye du ne sénégalais bu nek mom moy président de la république donc mu bu nek mu'min la waye du ne julit bu nek mom moy mu'min mom moy muhsin loolu daal ci gàttal mooy tasawuf ba pare nag mu jëlee cosaanam ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xamante ne moom mooy sufiyanke bi njëkk ndax bépp mbir buy tasawuf di jàngale do da nga gis ne yonentu bi sallallahu alayhi moom moo ci jiitu am na benn xasida bu siiw bu ñëpp xam ñuy jàng en tout cas ñu koy tuddee taiyatu suluk ila malikil muluk taaiya boobu noonu boo ko jàngee daf lay jàngal lan mooy xawaa'idu tasawuf ak lan mooy dudd suufi bi ci taalibe bi ba ci sëriñ bi ba ci ki nga xamante ne dafay doog a sóobu ci matlaa bi mu ngi wax ne usulu tariqi alqawmi ahli alxaqiqati hudaati alwara almahdiina min xayri millati tahaaratu anfaasin wa sidqu mawaddatin wa hisqun wa aadaabun wa ixlaasu niyati ba taaiya bi jeex bépp jikko bu mu fa jàngale rek di nga ko fekk ci yonentu bi alayhi salaatu wasalaam bépp jikko bu mu fa jàngale di nga ko fekk ci saxaaba yi waaye nag saxaaba yi itam nekkoon ay xaaj ndax yàlla am na ñu ngi ci génnee mooy wasaabiquuna saabiquuna ulaayika almuqarrabuun wasaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar ñu noonu ñi am ci ñoom ñu ñuy tuddee ahlu suffati ahlu suffa yooyu nekkoon benn mbooloo ci saxaaba yi ñi nga xamante ne dañoo ber woon dëkkee jàkkaay yonentu bi alayhi salaatu wasalaam di jaamu yàlla te di jël xam-xam yonentu bi ñoom dara yi teelu lu leen lu dul loolu ñooñu nag sufiyanke yi di leen roy di leen askan seen bopp ci ñoom da nga gis ni ka nekk ca kaw bokk na ci Seydina Abubakar Siddiq ci ay jikkoom bokk na ci Seydina Omar ci ay jikkoom nga xam ne dëddu àdduna moo tax ba jour bi mu gaañoo ñi ngi wut lu ñu ko sàngee amuñu ko benn abbaayam boo xamante ne dafa xotteeku fukki xotteeku ak juróom-ñaar moom lañ jël di ko ñawalante pour sàngee ko te moom moo nekkoon buuru jullit dëddu àdduna mën tawee su foofu Seydina Aboubacar noonu Seydina Ali noonu Seydina Ousmane Ibn Affan li mu amoon ci alal yëpp waaye ginnaaw gi dëddu na ko jox ko yàlla jox ko yonentam ba mujj gi ci rey lañ ko mujjee ngir topp yàlla ak topp yonentam loolu nag moom la sëriñ si jël di ci yar seen taalibe yi ba tey jii ñu agsi fii ñu agsi jaar na nag ci ay maraaxil yu bëri am na marxala yoo xamante ne ñu fa tollee sufiyankee buñ daan yar seen taalibe dañ leen di dugguloo ci àll bi ñu bàyyi di lekk lu neex fase seeni soxna di lekk ay xob mu gi ñi ñëw ci marxala boo xamante ne nii dañ leen di sóob ci ay zikar ñuy tëju ci ay xalwa di du nit ñi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla indee ci jamono cheikhu tijaani radiallahu anhu ci donn gim donn yonentu bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne moom li muy yaree taalibeem yi duut ci ay xalwa waaye ci sëyru nafsi ak ruuxu la leen di yare nga xam ne da ngay nekk nit ñi dangay ngay dund ak nit ñi te tere yaa ngi dox li nga xamante ne moom la góor ñi doon dox moo tax ngay gis Baay radiyallahu anhu wax na ko ci muqaddima Kaashiful Ilbaas bi mu indee waxu Zaruq bi mu wax ne tarbiya dagg na dara desul lu bay istifaadatu bil himmati wal haal bàyyi daal di indi wax jooju ba pare wane na nag déedéet tarbiya mu ngi fi ba léegi ci jamono ju nekk ñi ngi mën a yar taalibe yi ñi ngi leen di mën a yeggale ci yàlla ñi ngi leen di mën a génneeloo ci seen nafsu bi nga xamante ne yonentu bi sallallahu alayhi waxoon na ko ci alquran comme ni ñu ko yàlla jàngalee fa tuubu ila baarikum faqtulu anfusakum zaalikum xayrun lakum inda baarikum na ngeen tuub jëm ci seen borom na ngeen rey seen bopp waxuñ nga jël paaka jam ko sa bopp waaye mooy nga rey sa nafsu boobu nafsu boobu nag mënoo kaa reyal sa bopp fekk amoo sëriñ bu mat bu la ko mën a reyal lii ci gàttal bu ñu waxee nag léegi tafaasil yi nga xamante ne moom moo am ci tasawuf ñenn ñi di ko weddi wala ñenn ñi di ko bañ a gëm wala ñi ci am sikki sàkka lépp lu nekk mën nañ ko delloo cosaanam ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam première bi mooy jàpp ci sëriñ jaayanteek moom saxaaba yi dañ daan ñëw jaayanteeg yonent bi ci lislaam ñaareel bi moy serigne bi ñëw jox la charte ne la bo jaayante ak man li moy sama charte tidiane bi amna charte bopam murid bi amna charte bopam khadir bi amna charte bopam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam di nga gis ne non la daan ak sahaba yi amna hadith bu wér bo xamantene mu ngi ci musnad abu daud mu ngi ci sunan yi mu ngi ci yenen tere yi sahaba bi ñëw ne jaayante nak yonentu bi alayhi salatu wassalam ci l'islam washtarata alayya nusxa li kulli muslimin mu daal di ma chartal ci jullit bu ma gis rek laaya la biir kon gis nga ne saxaabi boobu noonu moom pour lislaamam mat dëgg-dëgg mooy il faut mu accomplir charte boobu noonu foofu nag la sëriñ si jëlee seen surut yi ñuy jox seen taalibe yi sama wérde bi boo ko jàppee doo ko bàyyi ba ba ngay dee parce que dañoo bëgg nga am lu baax dañoo bëgg nga sax ci loolu ba dee ci loolu moo tax sëriñ si tey jii li ñuy yar taalibe yëpp lu am cosaan la ci sunna sëñ Bécaye. Euh, jërëjëf ci suuf ñoom waaw salafiste yi mën nañoo wax ne ñenn lañ ci ay nit ñuy tuddee seen bopp ay jullit wala ñun ñi leen di woowee ay jullit ñoom tamit parce que ñu ngi wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah waaye nag il faut ña xam kuy dund salaf yi ak ku nekk xawaarij wala kuy dund xaarij yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis bu wér boo xamante ne mu ngi ci buxaari mu ngi ci muslim mu ngi ci téere sunna yépp yonent bi ne dina am ay mbooloo yuy feeñ mbolo yoy nonu ngeen len di xame moy yahqiru ahadukum salatuhu maa salatihim wa siyamuhu maa siyamihim wa amaluhu maa amalihim yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu taraqihim yuqatiluna ahla alislam wa yad'una ubad al yaquluna min qawli khayr albariya la in adraktuhum la aqtulannahum qatla wa samud aw kama qala yonentou bi mune ay nit danañ feeñ nit ñooñu nonu bu ngeen gisee ni ñi jange alquran yéen di ngeen xeb seen bop bu ngeen gisee ni ñi oré di ngeen xeb seen or bu ngeen gisee ni ñi julle di ngeen xeb seen julli dañuy bëri di wax ay xadis xadis xadis yonent bi mu ne loolu noonu yëpp du yegg ci seen xol ci seen làmmiñ yi lay yem te bu ñuy dee duñ deyaale gëm yàlla ñoo ñu noonu nag mën nañoo am taarix depuis ci jamono yonentu ndax li waral yonentu bi wax xadis bi mooy yonentu bi dafa toogoon benn jour di séddale ay màng benn waaye bu ñuy wax Zulxuwaysira ñëw ne ko yaa Muhammad i'dil ci beneen riwaaya mu ne ko yaa Muhammad ittaqillah yow Muhammad ragalal yàlla yonentu bi ne ko man bu ma ragalul yàlla kan mooy ragal yàlla Seydina Omar ci beneen riwaaya Xaalid ibnu Walid ñaan yonent bi ndigal pour rey ko yonent bi ne ko bàyyi ko dina am ay topp yuy génnee ci moom li yëg lii ak lii mooy seen melo kon kooku mooy seen cosaan bu njëkk muy Zul Xuwaysira moomu noonu am nañ ay maraaxil taarixiya yuñ jaar nag ginnaaw Zul Xuwaysira ba yonent bi génn àdduna ñëw nañ xeex ak Seydina Ali ci Nahrawaan ginnaaw Seydina Ali bi mu fi jugee yonent bi waxoon na ci xadis mu ne kullu ma kullama tala qarnun qutia bépp jamono danañ am génération ci ñoom boo xamante ne dina génn te buñ génnee danañ leen éliminer mais beneen génération dinañ jugaat maanaam ñoom dañuy sax di am ba ilaa yawmi diin ba Seydina Ali génne àdduna ñuy avancer di ñëw ba ci jamono ñoom Ahmad ibn Hanbal mën nga mën ngaa wax ne jamono jooju nag ci lañ commencé di am shubha mooy ne am na ay tawa tawaif yu feeñ mu'tazila yi génn ashaira yi génn maturidiya yi génn léegi am ñenn ci mbooloo ñoo xamante ne dañ ne woon ñoom dañuy tënku rek ci xadis yi nga xamante ne ni yonent bi wax na ko di ko interpréter ci zahir bi ak ci aaya alxuraan mais loolu lu mu leen yóbbee mooy am na ci ay ahadis yoo xamante ne wéruñu ñi daal di ko jël di ko dugal ci lislaam ba tey ji ñuy tajsim yàlla di ko tashbih ba finalement booy jàng seen yenn téere yi da ngay gis ne boo amoon desinateur bu mën a dessiner dina la mën a dessiner yàlla wala lu mu leen yóbbee mooy dañoo jël ay ahadis yoo xamante ne ni dañ koo fent dugal ko ci lislaam ñi di ci rey seeni moromi jullit wala di ci rey ay nit ba loolu indi extrémisme bi nga xamante ne tey moo am ci diina ji loolu lu mu leen yóbbee mooy lépp lu dëppoowut ak seen gëm-gëm dañ koy weddi bu fekkee barbahaar yi tamit noonu bañ jógee ci jamono Ahmad ibn Hanbal ñëw ci jamono barbahaar yi nga xamante ne moom dañuy day bind téere ba pare wax ne képp ku weddi benn xaraf ci lu nekk sama téere bi xéeféer nga foofu lañ commencé nag di takfir seen moromi jullit yi parce que ñoom takfiroon nañ Seydina Ali sax njëkk balaa ñuy takfir keneen alors ñu nag ñoom ñoo am cosaan jaar ci jamono Ahmad ibnu Hanbal ñëw ci jamono ñoom Barbahari ak ñoom Abu Yaala jugee fa ñëw ci jamono ñoom Ibnu Taymiya jugee fa ñëw ci jamono Muhammad ibnu Abdul Wahab mooy seen topp yi nga xamante ne ñoom ñoo leen topp tey képp ku soobu ci yoonu tasawuf ñi takfir la képp ku nekk ashar yi ñi takfir la képp ku nekk di topp mazhab ñi takfir la ainsi de suite loolu yëpp am na ci seen téere waaye daal boo leen bëggee xam da nga wax ne rek ay jullit lañ ñu génn topp ba pare jàpp ne ñoom ñoo ngi nekk ci yoon parce que yàlla loolu la wax ci alquran allazina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsibuna dëgg-dëgg lislaam moom mooy soobu ci yoon wi yonentu bi soobu woon ak ci saxaabaam yi te loolu mooy dëgg-dëgg tasawuf bi nga xamante ne nii mbooleem sëriñ si ci lañ nekk tey euh, macha allah kontaan euh, maanaam waa euh, waaw tasawuf moom li ñu leen di dénk mooy ñi sax ci yoon wi ñu nekk parce que moom mooy yooni dëgg kenn du am or ba pare di ko wecci ak doj doju xeer nit ki bu la yàlla denkee alxuraan ak sunna da nga koy téye dëgg-dëggam. bañ a déglu ki nga xamante ne dafa ñëw di woote wa alxuraan ak sunna te moom moo gën a sori ñëpp alxuraan ak sunna parce que alxuraan ak sunna lim digle moom mooy jàmm alxuraan ak sunna lim digle mooy bëgg sa moromi jullit alxuraan ak sunna lim digle moom mooy sax ci zikar ci tudd yàlla loolu noonu moom la suñuy sëriñ si jox boo delloo ci téere baay bi mu njëkk a bind ruuxul adab mu ngi wax ne ussisa bis sunnati wal furqaani mu ne tariqa tijaan bi tariqa la boo xamante ne dañ koo sos ci alxuraan ak ci sunna maanaam lépp loo ciy def rek mën nga koy génneel cosaan ci alxuraan ak sunna kon yow mu tasawif bi yow mi nga xamante ne yaay taalibe Baay wala yaay taalibe Serigne Touba wala yaay taalibe Sidi El Hadji Malick xamal ne li nga nekk moom mooy yoon wi yonentu bi nekkoon ak i saxaabaam ndax buñ demee ci Serigne Touba radiallahu anhu mu ngi wax ne wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jilani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi mu ne bépp wérde boo mën ci jàpp ci yoon yi dana la yeggale ci yàlla ndax ñoom ñëpp ci yoonu njub lañ nekkoon kon yow taalibe bi jàppal ci li te bañ di gëstu wala dem bañ di gestu soxla wo benen l'islam importé soxla wo benen dégg-dégg importé buñ la mëna indil waye ba hatta ñom ñi nga xamantene ñom ñoy tuumal tasawuf tay di tabdi sëriñ si di tabdi mutasawifay seen sëriñ si ibnu taymiya ci bopam ci majmuul fatawa ci volume 22 mu ngi ci wax ne tasawuf te wax na ko aussi ci volume 11 mu ngi ci wax ne tasawuf benn xeet la ci l'islam boo xamante ne nii nawun min as-siddiqiya maanaam maqaama siddiqiya la nekk comme li yàlla wax ci alquran ulaika allazina anama allahu alayhim min annabiina min zuriyati adam wala ulaika allazina anama allahu alayhim min annabiina wasiddiqina washuhadaai wasalihin fa ulaika maa allazina anama allahu alayhim min annabiina wasiddiqin ibnu taymiya mu ne tasawuf nawu la ci siddiqiya bi nga xamante ne nii ñoom dañoo jagoo zuhdu ak jaamu yàlla ala wajhi allazi ijtahadu fiihi ci anam bi nga xamante ne dañ cee def ijtihaad kon ibnu taymiya saxal na ne lii sëriñ si nekk bu fekkee lu tegu ci alxuraan ak sunna la ay ijtihaadaat lañ nga xamee ne noonu la imaam malik imaam shafii di defee ijtihaad di génnee masal parce boo delloo ci borom xam-xam usul yi bu ñuy taarif ijtihaad bokk na ci taarif bi gën a tënku dañuy wax ne mooy bazlul wus'i fi taxsili xukmin char fi taxsili xukmin zanni bi nassin char'i aw kama qaalu nga génnee fexe utal benn ate boo xamante ne zanni la fexe kaa utal cëslaay ci charia léeg-léeg benn nas mën na ñëw wala benn atte ñëw amoo ci nas sarix nga def ijtihaad génne ci atte imaam Malik loolu la def imaamu Shafii loolu la def Abu Hanifa loolu la def léegi nag sufiyanke yi aussi ibnu Taymiya saxal na ne ñoom loolu lañ def ci seen jaamu yàlla yi Cheikhu Tidiane ijtihaad na ba yàlla boole ko ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jox ko astaghfirullah jox ko nangam jox ko nangam sëriñ Touba noonu yeneen sëriñ su noonu kon loolu ijtihaadaat la yoo xamante ne comme ni imaam Malik di raxasee say cër ci njàpp ak ci julli ñoom noonu la ñuy raxasee say cëru baatin aussi lii zahir la lii baatin la te lépp dàquwante wut ak lislaam parce que ibnu taymiya ci boppam moom mi nga xamante ne moom mooy seen sëriñ ñoom ñuy weddi sëriñ si ibnu taymiya bi mu tuddee alfurqaan bayna awliyaay rahmaan mu ne képp ku weddi ne yónnentu bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xamu baatin ak xam-xamu zahir la indi wala nga wax ne yow da ngay dem ci yónnentu bi pour jël xam-xamu zahir kot bàyyi xam-xamu baatin ibnu taymiya mu ne kooku moo gën a doon xéeféer yahud yi kon maanaam yónnentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar yëpp ngay boole ci moom boo jëlee xam-xamu zahir ba pare jël xam-xamu baatin ñi ngi sant yàlla nag bi ñu booleeg ay sëriñ ñi nga xamante ne dañ ñuy yar ci zahir bañ yegg ñi doog ñoo yóbbu ci baatin comme ni ñu ko bàyyi waxee ci jawahir rasail isnaani laysa minni wala min tariqi fi shay majzubun lam yuslak wa saalikum lam yujzab bi mu demee ba ci biir mu ne li nga xamante ne moom laa leen di dénk wala ki nga xamante ne moo bëgg a nekk ak man na soobu ci yoon wi ma nekk ci def ndigal yi ak bàyyi tere yi bin pisaalil awaamir wa tinaabi nawaahi mu ne nag waaye képp koo xamante ne mu ngi askanoo ci man ba pare di xotti xormaay charia yi kooku dañ naa ci moom kon maanaam dañ lay digal nga teg sa tànk bu njëkk bi ci zahir teg sa tànk ñaareel bi ci baatin pour mën a yegg ci jëmmi risaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne moom ci yàlla. macha waaw Baye expliqué nañu moom kan mooy taalibeem ba mu waxee ci Jawaahir Rasaa'il ci lettre numéro 3. mu ne walakin ayna muridi minkum fa huwa a'awuzu min kibritil ahmar indakum man mooy sama taalibe mu ne sama taalibe moom moo gën a jafe mercure bu rouge li nga xamante ne nag dañ koy def jamono ji il faut ñu autocritiquer suñ bopp balaa ñuy sang suñ bopp di set am na loo xamante ne taalibe bàyyi tey wala ñuy mbubboo bàyyi ñu ngi koy def loolu bokkut ak bàyyi am na ñoo xamante ne ñi ngi mbubboo bàyyi tey di wax ay wax yoo xamante ne wala di ay jëf yoo xamante ne bàyyi di ñëw santaanewul maanaam buñ bëggee sax ci nekk taalibe bàyyi nañ sóobu ci yoon wi baye sóobu won comme ñu ko waxe ci def ndigal yi baye tere yi di bari tuddu yàlla te di sel ci sharia bañ di wax ne haqiqa haqiqa wala ma'rifa ma'rifa ba ñu yóbbee ci ñu xoti hurmay sharia yi lolu jaadu wut comme niko ko ibnul farid waxe won lawla hijabu shari qultu walakin qiyaami bi azha bi bi ahkaamil mazahiri muskit yi dëgg la léeg-léeg mën ngaa xam yàlla xamal la loo xamante ne ci sa xol yow yëg nga ne loolu mooy dëgg waaye tënkul ci أحكام sharia bi nga xamante ne تنك تبعي كل اللي te bàyyi ci loolu la وقت teg بنكم من ci loolu di saxal waxtu juróom yi buñ ko mënee julli ci mbooloo di ko تي buñ بس mënul di نجني فهو أعو مموي مود بيجنري مموي مود بيجنري تي طريقة تيان tijaan أن الورد أعظم أسرار xamal nañu ne mbóot booy mën a am wala ay tur yàlla yooyu mën a ba nit ñi foog ne da ngaa dof wala da ngaa da ngaa am dépression bàyyi nee na la wég de tijaan bi astaghfirullah beeg salaatu ala nabi beeg laa ilaha illallah bi moom mooy sa mbóot bi gën a rëy boo ko doyo dalee leneen loo liggéey du la jëriñ dara kon saxal ci loolu def wasifa ci mbooloo boo ko mënee zikr àjjuma nga bañ di ko tàlle la bàyyi sopp ci yow leneen loo def lu liggéey rek yaa yàq sa temps muqaddam bi aussi bàyyi dénk na la wax la ne walaysa ala almuqaddami almazuni lahu bi talqini siwa mujarradi talqin wa tabligi ma umira bi tabligihi min alshuruti wal adab lépp lu la war rek mooy nga joxe liñ la jox ndigal ci nga joxe ko loo amul ndigal ci joxe ko denc ko bul di jox taalibe lu leen di lor bàyyi di rek daloo taalibe yi lu leen ëpp doole te yem ak ñoom rek fi nga xamante ne foofu la sëriñ si yem ak ñoom ba pare tënkuwante ci taalibe ci sharia lépp loo gis ñu koy def ci sa kanam te nekkut ci yoonu sharia nga aaye leen ko parce que Baye wax na ci Jawaahir Rasaa'il mu ne bépp muqaddam boo xamante ne ñu ngi xotti xormaay sharia ci kanamam mu noppi ci kooku di bu moytuwul dinaa rocc ci ndigal ci moom yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nañu yàlla saxal ci ñu nekk ay dëgg-dëgg taalibe Baay yàlla nañu yàlla saxal ñu nekk dëgg-dëgg taalibe Cheikhu Tidiane yi yàlla nañu yàlla saxal ñu nekk dëgg-dëgg ay topp yonentu bi alayhi salaatu wassalaam yàlla dekkil ñu ci zumratu nabiyiina wa siddiqina wa shuhadaa wa saalihin wa xasuna ulaayka rafiqan ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci guddal bi bu fekkee kàddu gi am na dara lu ci juum ci ñàkk xam la ak ci suñu ñàkk bu fekkee am na dara lu ci leer baaxu yàlla la ci ndigal yonent bi alayhi salaatu ñu tawassuloo suñuy barke sëriñ yàlla nañu yàlla may seen barke ñoom ñëpp bi jaay sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam barhamu baun waraun alifun thumma ha faydu tiijaan jox ñu ñuy naan Thank